nga xam ne moom mooy Cissé Lo Cissé Lo nag balaa ci ñëw ñu fàttali leen nag cagnotte euh, cagnotte bi 218 millions à gagner samedi en direct euh, à l'STS kon képp koo xam ne gën nga carte bu 250 mën ngaa gagner li nga xam ne nag moom mooy Africa Million Cissé Lo ca assemblée nationale ak journaliste yi. et eh, Pierre Pierre Cissé Lo waaye Cissé Lo waay waaye Cissé Lo ca naam kaay eggali wax ñu nag ñan ak ñan ñoo la gën a jege ñu jël xaalis bi. barki Serigne Touba lu leer laa leen di wax li ma leen di wax dafa am fu ma ko teg gis nga Aïda Samb bi mu demee léegi ku xool assemblée nationale xam ne na Aïda Samb bi mu wooyee ñoom ñëpp seen yaram a daw daf ma topp di ma way ba li ma amoon yëpp ma jox ko waaye journaliste yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal kenn ku nekk danaa la woo ndax am na ñoo xam ne waruñu sax bind ñu koy wax ci dëkk bi du yoon man bu fekkee ne sa confrère la yow nga xam ne si sa loo xaritu diw la boo bindee information wol si solo na ko ah li may dégg ci yow ndax ma bind am dëgg waaye duñu ko def comp yi ma leen di compal musuñu ko wax fenn ñaata xaalis laa dépensé am na ci jamonoy Ablaye Wade joxe naa lu tol vingt millions ci ay gàmmu ak ay màggal yoo xam ne laajuma Ablaye Wade lan mooy revenu bi sama xaalisu bopp la maa ko moom barke Serigne Touba maa maa tey sama ngañ ko xam ne da nga ci wax loo xam ne waroo ko ci wax kenn moo mën a wax ma dégg mooy Macky Sall te li ma wax dégg naa ko dinaa ko jëfe waaye du ay journaliste ñoo may manipuler ñoom ñëpp laay xool tey amul tul journaliste amul comédien amul animateur amul koo xam ne da ngay def el ñëpp laay woo tey képp koo xam ne mos naa la jox loxo danaa la woo xaaral ma commencé ko ci comédie ma làmb wal fajiri wal fajiri ñan laa fa am am naa fa quatre personnes benn comédien ñaari journaliste benn animateur xaaral ma xool comédiens yi nga xam ne bu ñu toogee ci tele yi lu siiw ñoo ko siwal kooku Sa Ndiogou. allo waaw. Sa ngi war fajri koo kan la. man la sa xarit Cissé Lo. Cissé Lo gis naa li liggéey ci télé bi rafet na trop. koo kan la Cissé Lo bu ma nax moom la. dama la gëj a gis lu tax jaaratoo léegi bureau. waaw yi yi tey rek yi tey rek caba xaaral ma wuy téléphone. do caba mu noppi wuy ma. waaw euh, Sa waaw maa ngi fi maa ngi dafa am ku ma lay booleel mu ngi ñëw foofu léegi ci sa télé bi. est ce que diggantaan Cissé loola la xaw ma. yow tamit yàgg naa la woo du tey laa la woo. baat bi nduru naa nduru na xamee naa baat bi. waaw xamee naa keroog bi ma la jox li ma la joxoon kero hmm. dama koy doublé dégg ah kon maa ngi ñëw léegi léegi yaa ngi ñëw. xaaral ma jël baax na sama jàppal télé weer maa ngi nga benn gi noonu kon a jeel xaaral ma dem ci beneen télévision beneen dañuy nekk ci rajo yi di wax di lëmbe rajo yi ku nekk jour kii beneen journaliste la su décroché di ngeen ko xam moo ma ngay jël jëlagul xam naa ne dafa yaakaar ne dama koy may libre allo. allo waaw kooku kan la. kooku du Kouta. déedéet man la Samba da laa jaawale de kon. la waaw ku doon laajte Lamine Samba nga noonu kee Samba la tudd yow nga tudd Lamine boole boole mooy Lamine ak Samba ndax Samba Sine mooy Kouthia waaw Lamine na nga def. maa ngi fi rek kooku xam dafa yàqu. kooku la. man la Cissé Lo. ah Cissé Lo Cissé Lo ban ci. waay ñaata Cissé Lo ma xam waaw. Cissé Lo Pontedera. waay man la Cissé Lo lam de drapeau Pontedera bi yàqu. ah Cissé Lo député à l' assemblée nationale vice président assemblée Lamine xanaa da nga nekk ci télé bi. waaw maa ngi nii di tourné joŋante. joŋante waaw. kañ lay jeex. léegi ci kanam rek ba damaa soxla woon. est ce que yaa ngi gis sama loxo war a gisoo sama loxo. maa ngi lay seen maa ngi lay seen ni yow la kay. déedéet dama ne ndax mus nga ñam sama loxo war a musoo ñam. xanaa ñam ak ñamati kay la ñuy wax kay. <laughs> am nañ ko ba taay kay. coupeel weer naa la. benn ngi noonu xaar leen rajo yëpp lay wër da ngeen di xam gis nga am na ci ñoo xam ne salaamaaleykum. maaleykum salaam. foofu du TFM. moom la kay. ana comédien bi Kouthia. maa ngi nii maa ngi yow nii. saay saay bi na nga def. ah kookan la. yaa ci jàmm. ñu ngi sant bu baax a sant yàlla maa ngi sa liggéey bu rafet. waaw ñu ngi ci kaw musu mën gis sama biro yalla rek moo tax may wax. jaajëf waay musu mën a jox xaalis nga jël. dama lay seedal na fi nga ko téye téye ko fa. ndax yow da nga nekk koo xam ne. da ngay wax sax ay coppal ci télé nit wala doo ñëw jël si ko. ni nga mel exemple la man la sa tonton Cissé Lo waaye waatal est la. billaay barki Serigne Touba moom la. d'accord moom la kay kontaan. danaa la may xaalis nag ci sama coppare man maa la woo may la. waaye yow kenn du la woo doo woo nit di ñaan maa woo may la dégg nga. ah loolu de moom. maa ci sa kanam bu ma raccroché dinaa woo sa patron Youssou Ndour. jaajëf waay ko il partie des meilleurs éléments yi nga xam ne il rejette l'argent. jaajëf waay néew ma nag am na ñoo xam ne dañuy jël ci suk waaye xaaral ma xool kenn <laughs> barki Serigne Touba yéen waa senegal yéen a dégg seen bopp xaaral ma dem Zik FM. dama fay lamb duma bàyyi kenn allo. allo waaw kookan la. def. man la man la Ahmed Aydara kookan la. barki Serigne Touba. ki ngeen ki ngeen jaabaa jàll ci réew mi ba ñëpp dég ko. dama ne man la Cissé bul coupé. bul coupé bar danañ ko danañ ko jàpp xam naa ne dafa yëg maa ngi woote ndax dañu koy paasante formation baa ngi daw kon soxlatul may eggali. li ma bëgg xamal journaliste yi mooy gis ngeen lii échantillon la Walf Fadjri am naa fa comédien am naa fa te fem tamit su ma neexee ma ne am naa fa ñeneen ñoo xam ne ba loolu leen foog damay bañ a tas télé yi rek waaye rajo yi bañ koo tas mais barki Serigne Touba am na ñoo xam ne bu ñu dékkee mën nañuy woo nañu may ñu cure daa bu ñu secréto ah pour wan nañ ne amul du télé privé sax même RTS da nga fay làmb allo kooka la du xaarim sàmm. allo waaw du xaarim sàmm. waaw moom la kay. na nga def. sant yàlla bu wér. yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant baax. Cissé Lo lay woo. ah sëñ Cissé Lo. mos nga ñam sama loxo war a mosoo ñam sama loxo. xanaa ñamati kay loo. loo ma la yàlla defal loo ma ca mbaam ñamati kay xanaa la ñuy wax. coupel ñu ñam sama loxo foofu dañ ko mën a compter. xaaral damay bind RTS rek allo. waa diw na nga def. allo diw na nga def. alors kooku la. yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant baax a baax si solo. Ah, dama lay suturaal dama lay suturaal yaa ci rajo bu mag bu ñëpp di coow. waaw da ngeen def ay si seen. na ñam sama loxo war a musoo ñam sama loxo. ah xanaa ñam nañ ko ba taay yi de. jërëjëf dégg ngeen ko ma delluwaat Walfadjri allo. waaw kooku. foofu du Walfadjri mooma kay yow diw na nga def. sant yàlla bu baax yaa ngi ci ñam sama loxo war a mosoo ñam sama loxo. yow si sa ñëpp a ñam sa loxo na ngaa baax. jërëjëf xaaral ma dem ci réalisateur télé yi ndax télé yi réalisateur yi am na ñoo xam ne dañ lay cadré dañ naan la si sa béyaa maa koy defar day jàll am na ci ay réalisateur xaara ma xool allo. allo. waaw soxna si na nga def. ça va. sa émission keroog TFM bi toj na. oui kooku du ma wax sa tur dama lay suturaal. mus naa ñam sama loxo war a musoo ñam sama loxo. mais yow la kan man de Cissé nga ma ñam nga war a ñamoo sama loxo. plusieurs fois kon coupel kooku TFM la nekk. xaaral ma jël beneen alo alo allo. réalisateur na nga def. waaye sa tuyale yaa ngi toj émission wareef yaa ngi toj Kouthia Show yaa ngi toj journal 19h yaa ngi toj chaque jour maa ngi lay gis ngay réaliser fu ne damay suturaal sa tur. Ah. sama loxo war a musoo ñam. ah tuuti rek ñam mus nga ñam war a ñam. ana waa régie ana sa collègue yi nekk foofu. ana femme yi ne foofu. ana technicien yi nga xam ne ñoom laay faral di romb di leen jox. ñu def toog ñëpp a waa TFM waa régie ñooy ñi nga xam ne ñoom ñu ci ñama ñamal. paas keneen foofu. ma ne paas ma lu gàtt li Patrick moom xam na ma bañ na ko ba Patrick loolu tudd. barki Sëriñ Tuubaa woo na ma